tollu tey ñëpp xam nañu senegal mi ngi dugg ci guddi gu lëndëm boo xam ne nii kenn xamul kañ lay bëgg set fii réew mi tollu tey mën nañu wax ne sax makki Sall dafa dugal senegal ci sareetu jinne boo xam ne nii xamul fu ko jëme ndaxte senegal tey ku tëb ñu tëj ku wax ñu tëj ku wax ñu jàpp ku xalaat leneen lu dul li makki sàll xalaat ak nguuram ñu faagaagal la kon ban senegal lañ nekk senegal bi ñu nekk nag. mooy Sénégalu dictature Sénégal bi ñu nekk nag mooy Sénégal boo xam ne nii dañ naan kenn du bañ ñëpp war a bëgg waaye xanaa booy bëgg sax dangay bëgg lu baax mais li fi nekk baaxul li fi nekk jëmul jàmm ba pare ñu nee dañ ko bëgg bëgg par la force loolu du fa amee. loolu moo tax sénégalais yi ñëpp jóg taxaw ànd ak Yewwi Askan Wi ànd ak patriote yëpp ànd ak démocrate yëpp pour que lii nga xam ne nii moom la président Macky Sall bëgg a teg ak nguuram ñu mën ko fa jëlee. pour que Sénégal nekkat yi anam bi nga xam ne nii moom la ñëpp bëgg mooy anamu yoon anamu jàmm anamu développement anamu harmonie anamu entente sociétale bi nga xam ne nii moom mës a nekk mandarga Sénégal lii nga xam ne nag moom la fa nguur gi bëgg teg duñu ko nangu moo tax lii Yewwi Askan Wi wax ci plan d'action ñi ciy lancer appel à l'ensemble de la population sénégalaise ci jàmm ak sutura waaye nag ci fagagal duñ ko nangu ci jàmm ak sutura waaye ci tere ñu li nga xam ne nii ñoo ko moom constitution bay ñu ko duñ ko nangu ci jàmm ak sutura waaye nag duñu nangu kenn li nga xam ne nii constitution bi moom la jox en tant que droit opposition ak kuréel ak kuje gi duñu ko nangu loolu moo tax li nga xam ne nii moom la président Macky Sall bëgg a def ak ñu war ko xeex lii moo tax yow Askan Wi teg plan d'action ci plan d'action boobu nag mënuñu ñàkk a wax li nga xam ne nii moom la ñuy teg benn ci parti bi nga xam ne nii mooy Pastef ak ay ñoñam te ñëpp xam nañ ne tey jii président Ousmane Sonko li ñu ko teg rafetul jaaduwul waaye du ñu nekk di ko naqaru rek dañ koy xeex parce que loolu mooy suñu cër ku laal Ousmane Sonko laal nga yeewi askan wi yëpp ku laal yeewi askan wi laal nga Ousmane Sonko loolu moo tax lii nga xam ne nii tey jii moom lañ ko bëgg a teg yeewi askan wi yëpp dañ ko bëgg a teg te bu ne xel Sénégal duñ ko nangu te ñun duñ ko nangu. ñuy wax ne aussi lii nga xam ne nii dal na waa Pastef ba képp ku wax ñu jàppale tëj la ci kaso bi loolu dafa jaaduwul te daañu ko xeex te loolu nag xeex ko nag mooy dugg ci terrain bi mooy li nga xam ne ni ak ak yelleef bi nga xam ne ni constitution moo ñu ko may ñu foqar ci ko taxaw taxawaay bu mat sëkk ba lii nga xam ne nii mooy démocratie lii nga xam ne mooy jàmm li nga xam ne ñëpp la ñu soxla ci réew mi yàlla mën ko indi Sénégal que Sénégal jëm kanam maa ngi leen di gërëm di di wax ci réew mi fii mu toll di tàmbali di masaw jafe-jafe ak metit yi nga xam ni ay njaboot a ngi koy dund ay nit a ngi koy dund ndax ñu ngi leen jàpp tëj ci kaso yi waaye am na ay njaboot yoo xam ne ñàkk nañu seeni ñoñ ak ay nit ñu ñàkk seen bakkan maa ngi ciy tudd gone gi tudd Mamadou Korka Ba mi nga xam ni daanu na foofa ca Bignona ñàkk bakkanam ñu koy jaal njabootam yëpp ak di jaal ñëpp ñi nga xam ni ñàkk nañ seen bakkan ci événement yii am ak fu ñu mën a bokk ay sénégalais lañu. réew mi nag dafa toll ci jafe-jafe yi nga xam ni Déthié wax na ko malik wax na ko foo ko natt weesu na ko bu ñu doon xool tey la chose la mieux partagée dans ce pays dafay nekk naqaru xol. dafay nekk xol bu tàng dafay nekk rancœur dafay nekk frustration foofu la sénégalais yi ñi ëpp ci ñoom toll ndax jafe-jafe yoo xam ne yii Macky Sall teg na leen ko Macky Sall yemul rekk ci jël justice tënk ko di ko def loolu ko neex mu sës ko ci opposition te lépp lu mu def moo ki ñoñam defoon nañ fii conférence de presse bu yàggul ci milliards yi nga xam ne sàcc nañ ko ci fonds force Covid 19 ba tey jii seetlu ngeen ni dara amu ca te justice a ngi fii ci réew mi tegu ci benn jéego waaye gis ngeen ni tey lépp lu am ci doole ñoo ngi ko sës force de sécurité yi ci Yewwi Askan Wi ak askan wi nga xam ne ñu ngi génn di manifester bu ñu demee justice jël leen def leen mandat de dépôt ci lu ñu tegul fenn Waly Diouf Bodian El Malick ci ñi gën a récent rek laay wax Bilal maire Kër masar Sud euh, Cheikh Omar euh, Diagne Abdou Karim Gueye bi ñu demee ci kaso bi fekk fa ñeneen ba ci journaliste bi nga xam ne seen ñooñ la Pape Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi ci biir kaso yi yoo xam ni defuñu fa dara lu dul manifester wax seen xalaat défendre seen droit force de sécurité Sénégal yi dem nañu ba li ñuy wax règle d' maanaam bu ñuy def maintien de l'ordre dañ ko tënk ci république ni mu war a doxee jàppatuñu sax ni ay sénégalais ak ay doomu aadama la ñu jàkkaarool tant violence bi nga xam ne moom la ñu leen di donte gëm nañu ci ñoom am na ci ñoo xam ni askan wi la ñu àndal waaye seeni njiit ak seeni chef ñoo leen di def loolu loo xam ne day nekk safaanu yoon safaanu droit gis ngeen ni ñu def droit wu opposition bu ñu doon cité li Ousmane Sonko dund fan yi mën nañ fay yendu fanaan fi ci ñaawteef ak yàqu-yàqu ak loo xam ne lii kenn mënu koo xayma ci bon gu mu bon Macky Sall yemul ci li muy def fii ci biir réew mi ba ci xoqatal nit ñi ba ci menace ak ay assassinat tentative dàmbooj li ko dal seetlu ngeen ko xam ngeen ko ñu koy masawu mais ba tey du enquête du sax ñu jéem a protéger moom ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi ci yooyu risque gis ngeen li fi am ci milice yi ñu bàyyi leen ñu ne ci réew mi yor ay jaas di xeex ak nit ñi loolu nag li muy jur ci réew mooy bu ñu ko fànkul téyewuñ ko sénégalais yi ñun ñii dañu defaan suñ bopp ñeneen defaan seen bopp mu indi ay jafe-jafe ci réew mi. Macky Sall yemul ci bundu xataal teg ci fii ci biir réew waaye dafa yàq daru Sénégal ci àddina bi contact yi nga xam ne am nañu ko ak bitim réew ndax ñu ngi liggéey bu baax ak bitim réew ndax ñoom itam dañu am seeni ambassade fii ci réew mi nekk fi li fi ne ñu xam ko dañu am seeni entreprise yu mag. indi seen alal fii ci Sénégal di fi liggéey te ñu xam ne bu Macky Sall continuer lii muy def ci Sénégal Sénégal dina am déstabilisation Sénégal dina dem ci kawo te ñoom it seen i investissement dana yàqu ñoom ñëpp ñu ngi en contact ak ñoom di leen wax lii am ci réew mi ak di leen wax nu ñu war a def ñoom ba téye Macky waaye rapport yi mujj a génn département d'État américain lu mu waxul Sénégal ci recul démocratique ak violation des droits daf ko fàtte ci réew mu mel ni Sénégal Human Rights Watch rapport am génn lu mu waxul Sénégal daf ko fàtte rapport du rapporteur spécial des Nations Unies ci wàllu réunion ci wàllu liberté ci wàllu manifestation pacifique lu mu waxul Sénégal moom itam daf ko fàtte mën nañu site yeneen ak yeneen ak yeneen i rapport yoo xam ni yépp taqal nañu Sénégal gàkkal nañu deram te kenn du responsable ku dul président Macky Sall moo tax fii ñu toll réew mi dafa nekkatul ci ndax lu ñuy guddali discours plan d'action bii ñu wax doy na sëkk ci wane suñu taxawaay wane suñu suñu engagement ak suñu détermination pour jàkkaarloo ak Macky Sall jàpp na ne bu jàppee ñaar ñenn ñi dem toog mbaa mu jàpp fukk ñii ragal fu mu jàppee ñaar fukk téeméer génn fu mu jàppee téeméer junni génn bu jàppee mille un million de sénégalais dinañu génn taxaw ci kanamam. parce que réew mi Macky Sall tuuti na ci indi fi dictateur duñu ko seetaan. te dictature fu mu am maa ngi koy wax sénégalais yépp ñi nga xam ni ñu ngi taxaw di préparer di mobiliser pour ànd ak ñun ci xeex bi ni leen dictateur ñaar rek mooy gàllaajam mooy la lâcheté des uns et la peur des autres loolu rek mooy gàllaaju dictateur ci réew lacheté mooy ñi nga xam ne xam nañu am nañu xam-xam waroon nañu jóg xeex ndax xam nañu kii lii muy def baaxul ñu tiit ngir seen njariñu bopp seeni intérêt wala ba dara yàqu ci seen àddina ñu toog lu fi am baax na la peur mooy bëgg nañu jóg xeex waaye ragal nañu ndax gis nañu li fi nekk ci gendarme ak li fi nekk ci policier ak blindé yi tant que mu ngi am ci réew nootaange du fa jóge réew yi changé yépp dañu dem ba dépasser li ñuy wax barrière psychologique loolu la ñuy ñaan sénégalais yi ñu ñu yegg fa ñu xam ni dictature boo ko fa bëggee jëlee da ngay am taxawaay loolu nag ñu ngi ñaan sénégalais yi surtout jeunes yi teg ci jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi nangeen jóg ànd ak yeewi askan wi parce que lu mu laaj ci combat bi yeewi askan wi dina ko def su ko defee incha allah dina ñu atteindre suñu ay objectif te Macky Sall lu mu yàgg yàgg yàgg moom mooy reculer. damay wax chaque conférence de presse dinaa ko fàttaliwaat xaw ma yoon wi ñuy jaar wan la xaw ma ñun ñii ñen ñoo ciy des ci biti xamuñu ñen a ciy ñàkk seen bakkan yàlla tere waaye li wér mooy Macky Sall 2024. du nekk président de la république du Sénégal ak pexe yu mu mën a def te 2024 ñii nekk ci yi opposition nekk ci Yewwi Askan Wi amu ci kenn koo xam ni Macky dina la tere yow nga nekk candidat loolu mooy suñu vérité loolu nag xam ngeen ni dafa laaj taxawaay ak xeex te lu mu ko laaj danañ ko jox maa ngi leen di sant di leen gërëm